xeex jàngoroy sida senegaal am na ci ay ndam yu bare waaye seetlu nañu ni bés bu nekk xale mën naa juddu ak doomu jàngoroy sida bu ñu defulee dara. loolu dafa war jeex. fii ci senegaal dafa war a dakk ñun sage-femme senegaal yi dañoo ànd booloo taxaw temm ngir xeex wàllante.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 ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm ci sa kanamu télévision Futur Média di kontaan nag di leen ziara di leen euh, souhaiter une bonne semaine nuyu sunu président directeur général ak mboolem directeur ci biir kër gi noo ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla dolli leen jàmm bu ko defee itam lépp loo xam ne rek bëgg nañ ko ci kër gi yàlla nañ ko doxal ak jàmm macha allah mu am yokkute bu baree bare ñu ngee taxaw nànk ci suñu wetu ay kilifa diine ak suñu ay kilifa aada di leen ziyaara di leen sopp lool macha allah waaye itam di leen ñaanal yàlla yàlla na mën gi yokk yàlla na ngeen fi yàgg lool te wér macha allah ndax seen taxawaay am na solo lool lool lool. noonee la ñuy nuyee itam ñi nga xam ne ñooy suñu ay xalifa généraux noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq di ñaan ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yal na yàlla yàggal seen taxawaay ndax daf cee gën a am solo bépp ñaan boo xam ne yéen a ngi koy ñaan ngir àdduna bi rawatina Sénégal yàlla nañ ko bokk ak yéen ngeen yàgg fi lool ca wér bàyyi xel képp koo xam ne jamono bii nga xam ne ñun ñu ngi fi toog di def émission wareef yaa ngi ci clinique yi yaa ngi ci hôpitaux yi yaa ngi ci dispensaires yi noo ngi lay wax rek massa ndax li man li may bëgg li may wax saa su ne rek mooy ñàkk xam sa jàngoro loolu mooy jàngoro waaye boo xamee sa jàngoro ñu ngee ñaan yàlla yal na la boole ku lay faj te loolu ñàkkul Sénégal képp koo xam ne daal danga tawat yàlla na yàlla féexal la te bañ a tëral kenn dinañu dem itam dugg ci biir ñi nga xam ni caabi daf leen féete gannaaw massalu leen coono toogaay yooyu waaye nañu jàpp ne rek ne càngat la càngaay lay doon ci ñoom incha allah bu ñu fa jógee lépp lu ñu laal yal na ko yàlla yombal seen réinsertion yàlla bu mu am benn jafe yàlla mooy dogal te lu mu dogal rek dañuy daal di nangu nangu nag nit mën na koo def tàllal ko loxo ndax moom rek moo fi nekk ku waay yaakaar ku ne yàlla la yaakaar kon yàlla na ñu yàgg ñaan yàlla mu ñuy yàgg nangul noo ngi leen di ziyaara bu baax a baax jamono bu ñu fi toogee itam am na kër yoo xam ne dañoo yeewoo tiis noo ngi leen di massalu bu baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla mu indil ñu jamono yu dàq yi jamono donte jamono bu ne dañ ciy wax rek alhamdulillahi rabbil alamina ziar nañ leen sopp leen ñaar ñaanal itam ñu ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom ñu nekk tey ci njëggalu suñu borom njëggal googu yàlla na ko suñu borom yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu wayjur yee ngi fa sunuy soppee ngi fa sunuy mbokk ngi fa sunuy wasilaa ngi fa yal na yàlla yóbbu leen ñoom ñëpp aljana macha allah dalati leen ci seen émission wareef may kontaan ci ànd ak Ndoye baan bu baax a baax kontaan itam ci ànd ak Mami Linguère laa tay dara dinaa wax Ndoye Bane bisimilah. salaamaaleykum jërëjëf Eva ñu ngi lay ziar. di jaar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp di jiital sunu sëriñ ba Cheikh Basirou Abdoul Khadr di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér. amiin yaa rabbi mook mbokki taalibe yëpp ak mbokki jullit yëpp di jaar sunu xalifa ba ca Pire. Mhm. sëriñ Mansour Cissé ak njaboot gi yëpp ñu ngi leen di jaar. Mhm. moom parent ji bi Diagne ak monsieur le maire euh, sëriñ Boub ak Baye Bardo Dieng ñu ngi leen di jaar bu baax ak sëriñ Baye ak soxnaam. Mhm. di jaar imam Moustapha Ka bu baax di ñaanal notable ci dëkk bi yëpp. yàlla na jàmm yàgg ci réew mi. la jaar yow ak bu baax tey naan rek ñu ñëw xuus ci xuusaat ci biir kër yi bu baax a baax góor ñu sikki ñeeg jigéen ñu sikki yeeg ak mhm. goro yu sikki yeeg dëgg la njëy euh, yu sikki yeeg mhm. ñu taskatu say yeeg say mhm. saytaane yeeg rambaaj yi ci biir kër yi nga xam ne yëngu ñoo ko yëngal bisimilah macha allah sama xel dafay dem Adja Linguère ci association Noor ndax ñoom itam ñu ngi doon def séminaire bu mag séminaire bu am solo ndax xam nga jigéen yi dañuy faral di def séminaire ci liggéey yi def séminaire ci renforcement de capacité yeneen ak yeneen ñoom euh, Soda Malick Sourang mhm. ak ki nga xam ne ndey xadi aj lañ koy wax ak seen ay xarit ak seen ay soppe mhm. dañoo tase woon fële ci Pullman di waxtaan ci naka la ñuy def ba sëy yi gën a rafet dëgg la waxtaan naka la ñuy def ba nangu sax polygamie ñoom xale yi ba tey mhm, waxtaan ci naka la ñuy def ba néegu sëy naka yàlla waxee woon doon bànneex ñooñu lan nga leen di wax réeroo amul ñàkk waxtaan am hmm. te xam nga nee naa la fu jàmm yendu rek ni dafa xam lu mu waxul te lu ñu waxtaanee ba tënk ko kaa ñu jëf joo mës a dégg ci kaa ñu waxtaan ba jiitoo kon lu ci mën di am dañoo war toog di ko waxtaanee kon jigéen ñooñu rawatina ci nekk ay xale mhm. dañu leen di soññ rek ndax bu kuréel yu mel noonu bariwee mhm. ñu dem ba yenn yëpp ñu nangu ko xam ne ci sëy bi la bokk mhm. Eva dafay yombal bu ko defee bu ñu woowee macha allah borom xel bu rafet bu mel ne yow woo keneen ak keneen ñu ñëw toog ñu sottante xalaat ku ci nekk jël ci la ca gën yóbbu soo waxee loolu nag sama xel dafay dem ci sa sa xarit euh, la touche pas à ma sœur. man ñooñu dañ ma neex ndax euh, bu fekkonte ne kenn ku nekk nga yor sa biir kër da nga ko jàppee comme sa jigéen. yaakaar naa ne yenn yu baree bari dina dina moytu. kon ñooñu dañuy ñaan yàlla seen jàmm yàgg. kon dañuy ñëw rek door nañ daan dooreeti. neeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaari tey ak ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore di ziar mbooleem kilifa diine kilifa aday di ñaanal sunu soppe xarit ba sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla na yàlla yokk leeram taas na yan bi woyof sunu xalif généraux yi ñun de bu ñuy nelaw yéen ci der bi te jàmmi réew mi rek a leen fa bàyyi uh-huh. yaay diggéen yàlla na giseeg soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uh-huh. Kamara Jibante booy yaaxa jaay yàgg fi loolu te wér loo fi yàgg doyal ziar maman Kinouchka yaay na fi ak njaboot bi yëpp di joxaat wàccuwaay bu gën a sell suñu ba sa nuyoo ngi noonu bàjjen Awa Diop faari jëlal sa nuyoo ngi noonu delluwaat nag Eva di la jox nuyoo waa cité dammeel di la wax ni ña nga lay nuyoo te lay safoo yow ak ndoy baa nee nañ jox nañ la sa wàccuwaay bu rëy rëy ma gis fa itam jigéen ñu am jom jigéen ñu takk lool lool lool bëgg lu baax topp ci sama ginnaaw yaay jooju moo tax ma ne woon faa ma jàllale ko waaye Eva dañuy delluwaat waxaat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun soxna muslim bay ku nekk xam na ne li wàcc ci kaw njabootam metti na metti na metti na te ñun sénégalais yëpp ñu ngi ànd ak yéen di leen ko jooyle di leen ko metti lu leen ndax lii ku mu sa kaw nga xam ne metti na waaye yéen mu dal ci seen kawit ñu ngi ànd ak yéen di leen ko metti lu di sukkaat ci suuf di ziar waa kër Maulana Cheikh Ibrahima Niass yëpp macha allah mami dégg nañu xibaar ba tey ci suba wallaay ndeysaan dafa fekk ne yenn xibaar yi ndeysaan doo ca bëgg sax day metti day metti ndax ñaare léeg-léeg ñu ne lii léeg-léeg ñu ne euh, nale mhm. doo xam ñaata nit a ci génn àdduna ànd ak lu mën ci am yal na yàlla dolli yërmande ci ñoom bu baax a baax fi ñu dem yal na leen gënal bu baax a baax a baax fi ñu jógee ñu ngeen nuyu bu baax a baax ab lay Diène moom itam macha allah ca grande mosquée noo ngi leen di jox cër bu baax a baax mbokki téléspectateurs yi di leen fàttali ne ñu ngi waxtaanee li nga xam ni seetlu la bu nu def bi ñu xoolee statistiques yi gis nañ ne ca 2013 amoon na lim bu takku boo xam ne nombre de divorcés la woon divorcés yoo xam ne dañu ko sax prononcé maanaam bu ñu waxee divorcé bu ñu prononcé xam nga am na yoo xam ne dañu dem ca tribunal ba ñu àtte ne lii sëy bi tas na am mhm. yeneen yoo xam ne itam ñu ngi ci biir ci biir askan bi te kenn bëralu ko kenn fësalu ko mhm. kon boog ñu gis ne divorce yi dañoo bare lool lool lool lool fa tabaarakàlla yal na yàlla wàññi ko ñu ne nañ ci taxaw waxtaan ak yéen li tax mooy xam nañ ne émission wareef dafay seen émission dafay émission boo xam ne dinañ leen ci dee déglu dafay émission boo xam ne dinañ ci jot ay témoignages témoignages yooyu nag léeg say dana tax ku mel ni Eva Tra wala la Mami Linguère defaraat toogaayam ku ci mhm. mel ni Ndoye Bane itam di borom kër daa dee ne ndekete yoo jigéen kenn du ko yore nii nii la ñu koy yore ñu tàmbali woon ko semaine dernière doon wax li tax divorce yi bare semaine bii nag li tax di divorce yi bare dëgg la waaye naka la ñuy def itam ba mu wàññeeku wàññeeku bi nag lu koy indi du dara mbokk yi balaa ñoo sax dem communication ak dialogue la ñuy teg sincérité wax nit ki dëgg li nga mën nga wax ko li nga mënul nga wax ko moom itam kazaalika mhm. bu ko defee ànd bi yomb lool waaye nag divorce itam bu ñu fàttee mukk ne famille la ñun ñëpp ñoo ko bokk bu nu demee nag ba divorcé c'est parce que parfois itam benn partie ci kër gi am na ñu ci jàppul. Mhm. léeg-léeg li naqaral sëy bi sax dinañ koy wax njëkkee ci la ñuy bokk goro yi ci la ñuy bokk léeg-léeg dëkkandoo mën naa naqaral sëy yooyu yëpp daal dinañu ko euh, càmmal dinañ ci waxtaan daal di xuus bu ko defee yëf yi gën a yaatu ku ci nekk nag daal di cay jot wàllam ndoy baan bisimila nee nañu li waral divorce yi bare bokk na ci réseaux sociaux yi ak dégradation merci mhm. kon ñu bëggoon nga dikk si tuuti. jaajëf jaajëf Eva comme wax nga sànq lu am solo ak naka la ñu mën a def ba mu wàññeeku. Mhm. mooy moytu. Mhm. Euh, yéen ñaar ñëpp ngeen di ngeen di ngeen di moytu. sa monture yi dafa rafet. comme fort la bu ma wax loo bu ma wax loo ah, bu ma wax loo ah, baax na bàyyi ma wax ci thème bi rek man damay wax de. yow tey da ngaa couleur sax. xam nga rek. non xam nga rek monture bi de rafet jamono ju ne ak la cay xew. waaw waaw ah, d'accord dégg nañ la ku ma xool rek sa xol war a sedd. <laughs> mbaa xol yaggi ngi fiix. ñëpp a ngi fiix ko bu yàgg. <laughs> ma ne Sénégal yéen mbaa xol yaa ngi fiix. galaase nañ la tontu ba noppi. waaw nañ la Henriette ree na ba tëdd ci non yi ñoo koy jël réseaux sociaux. Adja Kine loo maa leen di may xaalis. waaw yow les sites internet laa. ah ñoom weeru dee ku nekkoon nga maa daggal def nga sa couleur de def nga sa ay Sénégal mbaa mbaa xool yaa ngi féex. man la zirig nañ ba galaas. <laughs> voilà c'est ça xool yi dafa wut a féex. Eh, Eva ku sa xol féex doo fase sa jabar. ku sa xol féex doo tontu sa tontu bu ñaaw sa jëkkër. Mm-hmm. mais li waral affaire yi di tas te sànq ba tey ñu ngi koy wax ñoom dañ ko tëb muy fiir mm-hmm. jigéen ñi dañoo fiir. Mm-hmm. bugg ñoo bokk. te ñun Sénégal nekkuñu ñu ci ëpp ay jullit lañu. ku ko mën da ngaa war a takk beneen jabar. ci kaw nga teg ko def ko ci respecté sa jabar man bëgg naa góor gu respecté jabaram bëgg naa jabar joo xam ne tamit day respecté ki nga xam ne moom moo di borom këram waaye di lu njuntu sa borom kër di ko vérifier di ko palper di xool ay ordinateur am di xool ay portable am Ah, di xool jënd ay tubayam di ko fóon ah, di fóon ay yéreem ndax dugg na fee ndax cuuraay li muy xeeñ ndax su cuuraay li muy kenn xamul cuuraay mënta téye kenn fenn nañ ko xam seen yooyu ñuy def seen bagage yooyu téyewul kenn fenn xam nga lan mooy téye góor ci kër mu nga may ko jàmm salaam ak salaam jigéenu salaam boobu nga wax uh-huh. soo dee jigéenu saam sa boroom kër du génn soo dee jigéen joo xam ne da ngay cuuraay ba mu neex di sol ba mu neex te mee waa ji jàmm te su la nee ngeen ko deux mën a tontu bay bëgg dee waa ji dina génn wuti fu muy amee jàmm jigéen su mënta togg góor gi dóor gi na génn di wuti mm. togg fu togg gu neex mm-hmm. nekk comprendre nga de dafa mel ne dangaa dégg soxna Fatou Ndoye Fall te bari na ci ñu ci bari wax na ko ca waxtaan jigéen su saltee góor dina dem wuti jigéen gu set mm-hmm. ci gën ko salte da ci bari na ci nag bari na ci ñu bari ñoo xam ni cetu ginaar dañu set da nga leen di gis ñi solo bay bëgg a dee dem ca meeting ba jekk bay bëgg a dee wala ñu dem Sorano wala Grand Théâtre nga yaakaar ni noonu lu fekk loolu yëpp habillage la xam nga portable mandargay jigéen bu tilim naka la jigéen gu tilim ak góor ñi nag ñoo xam jigéen gu tilim yéen ñi xamu leen jigéen gu tilim de mm-hmm. góor ñi ñoo xam jigéen gu tilim jigéen gu tilim du kaw gi nii rek xool ko mu póodaru teg garafaasam sañ sa taxaw non non non non mm-hmm. dafa am jigéen ñoo xam ne dañoo salte mm-hmm. voilà xam nga suñu ba jigéen gémmañum di xasoo beneen affaire la dégg nga loolu day dàq góor te mën na indi li nga xam ne moom moo di divorce d'accord bari na gémmañ buy xasaw rek waaw waaw mais gémmañ buy su xasawee kay ya ci des jarut jarut wax wax nga dëgg jigéen du set setu ganaar man ni bis bu ne mu wax ko fi loolu dina dàq góor ci biir këram beneen bi mooy jigéen ñi nañ bàyyi yaakaar ne suñu leen takkalee wujju rek sanction la mhm. non non non am na ci yoo xam ne sanction la mais am na ci yoo xam ne du sanction soo mënta am sa jàmm sa biir kër nga gis ji góor jigéen gu la may jàmm en général dina pousse pour nga takk ko soo ko takkee nga naan waaw yaayam a ko ci dugal ay sëram ñëw ko ci dugal patiti patata fekk yow yaa pousse sa jàmm jëkkër ba mu takk li nga xam ne moom moo di beneen jabar uh-huh. mais fi ma bëgg ñu taxaw fa mooy fiir uh-huh. jigéen ñi dañoo fiir am na ci góor ñoo xam ne nag góor nag su fiiree boobu mooy bi gën a dangereux te am na ay yenn vérifié yoo xam ne soo ko dee def sa jabar wala nga koy def sa jëkkër génn say tas say bi moo gën uh-huh. am na ci ñoo xam ne dañuy jënd téléphone jox la jënd téléphone jox sa jabar téléphone boobu musiba la te xamuloo ko léeg-léeg sa jabar ñëw jëndal la téléphone jox la fekk piège la li ngay wax suba ba ngoon jot da ciy jot mais loolu moom ndax message boo jot waa loolu ndax ndax noppale na noppalewul kooku noppalewul li da ngay dootoo ne dootoo tala faaru dootoo tala defar loolu nag mi ngi ci ba man gis naa faam boo xam ni dictaphone la jënd mooy yi may defee reportage. Mhm. dictaphone yi may yor man di ci def reportage mën na en enregistrer presque 48 heures wala 3 jours wala 4 jours play ko bës ba ba ba record sànni ko ci oto jëkkër ji. yàlla tere. lu jëkkër ji di yendoo wax suba ba ngoon jot su ñëwee soo jëkkër ji wàccee mu ñëw teg caabi ji mu dem ubbi caabi jël affaire ba di déglu lu jëkkër ji doon ne waxtaanee lépp. am na ay jab am na ay góor yu ko def yu koy def. seen jabar ci kër ga la nekk dañuy jël dictaphone yooyu sànni ko ca néeg ba. lu sa jabar nekke wala ay ay caméra yoo xam ne sànni ko ci néeg bi lu sa nekk jabar nekke nga koy gis yooyu dafa lakk dafa loolu loo xam ne donc yaa ngi koy déglu te soo ko dégluwul dootoo nekk non dootoo nekk. jarut a déglu jarut wax nga lu su demee ba vérifier gis ne yow mii juboo dama lay bàyyi man kenn du ma stressé. Mhm. su ma xamee ne yow mii soo tëddee guddi da ngay waxi téléphone. Mhm. wala su ma liggéeyee da ngay waxi téléphone nag am yoo dul waxal fan yee passé amee benn waajoo xam ne ndeysaan du ma ko yërëm sëy na ak jëkkër jabar ji 12 ans. di liggéey ci benn entreprise bu guddi gi day dem liggéeyi yenn saay ba guddi day liggéeyi nekkat jabar ji dafa am ko muy waxal di ko seeti muy wax ak waa ji di ko seeti di wax waaj di ko seeti su demee seeti waa ji ba pare ba ñëw moo waa ji ñuy ojo ni nga ma def li ma la def vraiment soo amul woon patati fam jàpp portable ba ja boppam jàpp portable ba toj rakku jëkkër ji day defal portable jëkkër ji jël téléphone bi jox rakk ji rakk ji yegg ci atelier ba branché ko mais audio yi naaw dégg jabaru grand frère am di wax wax yu garaaw ak keneen ku dul grand frère waa ji dem woo jabar ma grand frère bi tegal ko affaire yi audio yi ndaw si ñëw eh, waa ji indil ma ko ci rajo ba ma déglu audio yi ma interview mais audio yooyu kenn mënu koo teg fenn c'est que loolu mooy problème bi te boobu li tax waa jooju nee na man mu fase ndaw si man ko est-ce nga takkaat jabar fase na ko de man ko est-ce que di nga takkaat jabar mun ma su man ko man munuma mën naa am sax jabar ju baax mais su ma ko takkee su ma liggéeyee damay yaakaar ni. la kee nekkee loola nekkat. macha allah mënutuma wóolu jigéen ci eh, kaw. li ngeen gis nga li jërëjëf. doy waar de gis nga li muy indi tey. Mm-hmm. lu doy waar la. tey bi mu tàmbalee ba léegi dama am envie sax tàcc ko. Mm. parce que tamit xam nga man bëgguma ñu jàpp ne dañoo toogal jigéen ñi rek wala dañoo toogal góor ñi rek. mais dañuy faral di def lu mbir mu nekk fa muy mettee ñu waxee ko foofa mais li mu wax nii yëpp lu ci nekk tas na sëy mais bi ma bi nga ko wax sànq bi nga tontu sànq itam daf maa neex gis nga Eva man sama nastu bakkan bi kenn du ko jël allo oui salaamaaleykum wa rahmatullah jëlal ki ci ligne bi allo allo bu baax bi ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay gone yu njóobeen yi la téléphone bi lañuy ñuy jaawale dagg. dama dama fogoon ne Serigne Serigne ñaa ñaambay la sax waaye du moom. gone yu njóobeen yi la dañuy jaawale téléphone beeg mburu mi. waaw mami nga Eva ku la xañ sa ndoxus bakkan rek. ma nga lay bëgg xañ sax dem ba ci sa jaamu yàlla ak sa dund gu neex. dëgg ndax gis nga ku bay sa bànneex ku nekk faaw nga góob sa naqar. Mhm. dafa yoo xamante ne boo demee ba mu nar nit nar la koo tekki sa àdduna bàyyil nit kooku yow te continuer sa àdduna. ndax kenn ku ci nekk sans boppam la gënal yaakaar naa ne du bañ naa la. Mhm. te nag na confiance ko lal bu ñu demee ba confiance ba jeex fa mhm. wala nga dem ba xam ne yow mii li nga yor ci sa biir kër dafa jubadi dëgg la bul ne dafa jonge bul ne daf maa neex bul ne daa baaxi bokk bul ne daa riche bul ne daa leneen tàqalikool lag moom mhm. ndax gis nga jabar ju bon fas wu nanguwut a liggéey mhm. kër goo xam ne at mu ne mu lakk ak bañ buy mettee yam fekk tàqalikoo woog ñoom mënoo am jàmm kon da leen di teel a libéré ñu dem nga am sa jàmm mais ndoy baan dafa dugg samit sànq fu ma neex gis nga góor gu ragalub dépense siis ñaawul làmmiñ mën a sosalaatey far bu dee day tënj boppam. <laughs> ci yàlla dellu si. góor gu siis. Mm. ragalub dépense. Mm. ñaawul làmmiñ mën a sosalaatey far bu dee mooy tënj boppam. leer na ndax wiitaaya koy rey. waaye gis nga jigéen ju dëgër bopp. Mm-hmm. tilim ba ne bokk bokkeeral. Mm. ñemeb dox te du tàggoo. fu ko mban a fekk mu nekk mu taal ko ba yegg ko soog a ñibbi. Mm-hmm. kooka na la wóor ne moom itam bis bu dee yooyu moom mooy suuli boppam ndax du am jëkkër ju ko seet. jëlal ki ci ligne bi nekk salaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa waaw maa ngi maa ngi woon Sénégal Sénégal fii. yaa ngi wootee Sénégal. waaw. waaw waa Sénégal a ngi lay déglu. waaw vraiment ngi déglu émission bi am na solo lool lool lool lool lool. jërëjëf. waaw man damay vraiment li ngeen di wax nii ma même dal na ma ko. depuis ma am ñaareel vraiment ay ci problème rek laa nekk. noo ko dundee. billaay wallaay billaay wallaay wax naa sama koo koo wax rek vraiment mu yaakaare kare nga faral di mais loolu moo tax eh, émission bi am na solo lool lool lan ak ci dund. waaw loolu laa nekk di dund ba instant bii nii. Mhm. mu ne. dafa dafa bëggoon xam yow ban côté nga ciy dund est-ce que sa jabar daf la gëmatul est-ce que lan moo mhm. xew foofu. moom dafa mel ne daw na. c'est que da ngay am da nga am jabar nga may ma ma ñëw ci. ñëwal parce que da nga ñoo ñëw fii. waxal ñu fi li nga wax li nga wax nag nangul nañ la ko tëmbaaje nga ñu ruube ngañ ci suba gi. am na ci am na ci ñoo xam ne seen taar yëpp taaru kaani salaat la rek mooy seen leen ñuy biree mais boo daggee ci biir dara nekku ca. Mm. ndax jéeg bu mën a xëy di dox ak a wax tëjub salle de bain mu mel ne nen bu nëb. kooku moom xamatul njariñu salle de bain jaru koo wutal. mami bu ñu waxal loolu suba teel. <laughs> ah mais tamit parce que quand même salle de bain tam bu nga du romb ay dëgg du romb ay nopp. dëgg am na ci jéeg joo xam ne loo leen naw naw naw boo duggee seen douche xeeb leen. Mm. parce que douche ba day mel ne fu ñuy jaayee laaloom bépp fooy teg sa tànk muy dem. satala <laughs> yi du ñu raxas. Ah. dara du ñu raxas. lépp dañuy teg rek potu saabu yi boo laalee mu barastiku loo laal mu barastiku. douche dañ koy toppatoo douche bu tooy sax day daw yaram. douche dañ koy parfumer di ko cuuraay di ko neng nengal léeg-léeg sax nga jënd ñaar petit fleur yu ndaw décoré ca wet ga mu am tuuti nu mu taaroo. Mhm. boo fa duggee mën faa jël sa temps. ah ñun de dinañ ñëw nga wan ñu. Euh, déedéet man xamaguma de am na njaq yu ndaw yoo xamante ne njaq yu tuuti da koy defar rek heure boo jeexee mu gilli nga teg ci watu kii bi. Mhm. yooyu yëpp am na fi. Mhm. te jeeg ji xam nañ ko parce que seeratul goowe gi ngay jël boole kook ceeb mi def ci tuuti parfum. boo jeexee mu neex. kon loolu yëpp temps rek lay laaj. beneen bi ci topp mooy jeeg dafa war a am temps wu jëkkëram. ci diggante daraara napp ya lal ba leneen ak leneen bicarbonate de soude bi yaa booy cent franc lay jar boo ko fëddee ci sa matelas matelas yi day jàpp ñaq léegi boo ko defee ci sa matelas xaar une heure de temps boo fëggee xet gi yépp dem loolu lépp pour téye waaj pour téye waa ji parce que waa li muy am ci biir kër gi mu wóor ko ne yow mi da jël temps ci moom doy baan yéen seen bopp da am seen jikko bopp loolu lépp soo ko dee def te te te téyewoo moo tax ñu leen di fase doy ndoy baan ah? nee naa la mm-hmm. maam nee naa la maam jaara boso yi jeexuñu xam nga man du ma eer maam Mor Anta Sali yi duñ fi jeex maam jaara boso yi jeexuñu mais yéen maam Mor Anta Sali yéen a dëddu xam nga lu tax du ngeen def li leen war hmm? du ngeen wax li leen war hmm? seenu joxe matatul hmm? te ku leen muñal ngeen ne daf maa ragal kon ngeen faaw ñu wax ak yéen salaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum. waaleykum salaam. pakkee jabal bi uumee ko mu foo jëlee loo joxe. lay delloo nuyoo akub ziar bu baax a baax. est-ce que jërëjëf waay. ndax xam nga seen benn thème xam nga li ko waral ñaar rek la. Mm-hmm. nit melul ni muy waxee ni muy jëfe la mel. dëgg la. ñu baax ñëpp dama wax ni àdduna boo fi nekkee da ngay folli sa nopp folli sa bët. Mm-hmm. dégg ca lu waay lu waay def gëm ko sa neex. Mhm. maa gis bakkan lay laaj. Mhm. ci àddina ak àllaaxira moo yem. koo fi gis mu tiit rek jëf bopp ma ko tiitloo. te lépp looy dox àddina ba mu gaar la. bu dee lu baax mbaa lu bon boo dawalee sa xel gis fa nga ko leblee woon. Mhm. waane lépp looy dox ci àddina la ba mu gaar baax mbaa lu bon da boo dawalee sa ko woon. dégg nañ dëgg. man ca sëñ Tuubaa dafa am ni. jigéen su kàddoom dëggoo jëmmam taxul. ndax boo nekkee sa jëkkër xeeb ko te bu la waxee doo ko def bu diglee doo ko def bu teree doo ko bàyyi. Mhm. say taxu laa jóg. dëgg la. te fenn ñett ku koy waral. da ngay ragal nit ki wala ko wala nga bëgg ko dara. Mhm. te boo waxoon dëgg am lu ko gën. ci lépp looy dox ci àddina ba mu lu baax mbaa lu bon boo dafalee sa xel gis fa nga ko lëglee woon. Mhm. te àdduna ñaar rek nga fi def doo ko rëccu mooy muñ ak lu baax. ndax nit bu fekkee daa ak daawul Sénégal bépp tànn la nga jabaram. mu mhm. fab alalam def ci yow fab alalam def ci yow. nga gënal ko jigéen ñëpp. su demee ba wàcc la. bu demee ba wàcc la. Mm. la la tax mu wàcc la yaa ko def. yaa problème ndax nit ak mbokkam. nit ak mbokkam. Hmm. du nit ak mbokkam. Hmm. du ak boppam la. Hmm. dëgg la. saa boo teddee. ke sa sa njaboot tedd bi. sa sa teraanga des na. ci bu la ne na bul weddi bul gëm gestu lu njabootam boo te gisul dara lu bajantu nga xam ne waxul dëgg. te lépp looy dox ci àddina ba mu gaar la muy àddina ak àllaaxira boo dabalee si nit ki ko def lewal koo gis fen ñett rek ko tax mu fen day ragal nit ki day ragal nit ki mhm. wala mu rus ko wala mu rus ko wala bëggal ko dara mhm. bàyyi fooy wootee walokaan ma doon alxuraan la Dakar nga nekk nekkuma Dakar damay de nekkuma Dakar de da nga <laughs> damay damay lépp tur yi la neexee ma continuer dégg nga bisimilah ñu teg mbokkam ak du ñu teg mbokkam. Hmm. ñu teg boppam. du ñu teg mbokkam. Hmm. ñu teg boppam la. Hmm. saa boo tëddee say bokk tëdd di sa teraanga des na wala jigéen nag su fekkee daa gis lu gën jëkkëram. waaw lu ko gënal jëkkëram. de jigéen boo gis mu maandoo di rek ñaar rek a ko waral. daa xam benn baa ñaar baa ñett. bu ko defee nag soo ko lay tàmbalee am choix. saabu moo ko yóbbu ca moo wax de waaleykum salaam wa wax na de góor gi. góor gi góor gi wax na. Mhm. wax na de. dommage nekkul Ndakaaru waaye. dellu li mu daanele mhm. déggu leen ko de. Mhm. nee jigéen su demee bay xeeb jëkkëram. daa xam benn wala ñaar wala ñett waaye su fekkee sa jëkkër rek nga xam. doo ko xeeb. li mu wax li lu mu lay fàttali. ah mi ngi noonu de. nee naa la woon bu fekkee baatu wala fal la. nee naa la woon bu fekkente ne basketteur bu mel ne Youssou Ndoye wala footballeur bu mel ne Dame Ndoye dana bëreet. Hmm. wala góor gi Dieng. waaw am na am na gi Dieng. waaw si Dieng gi si Dieng. mën a jàppale waa dëkkam loolu sax hmm, macha hmm, allah. su nee bëreet njëkkee sol pointe 31. ba yàgg bu sol 29. ba yàgg mu sol 46 ba yàgg mu sol 52 bu yàggee ba solaatee 19 day yëmbax ci moom. te am na nooy réglé wee loo xamante ne doo xeeb dara parce que da ngaa réglé tey si bopp lu ñëw nga adapté wu ak moom. Mm. mais am na ci ñoo xamante ne nii nag foowee nañ seen bopp ba mënatuñoo ànd ak leen waaye ba tey ndoy baan damay dellu si fa nga jóge woon. Mm-hmm. danga nga ne ñun jigéen ñi am na ci ñu salte dëgg la waaye yéen góor ñi itam am na ci ñu salte. Mm-hmm. ñu forox ñoo xamante ni dañ naan góor laa rek lu ma neex def duñu watu. Mm-hmm. du ñu neng nengal du ñu toppatoo du ñu rasé wu ji du ñu parfumé wu sangu soog a tëdd seen bañ la. waaw mais yéen ñi nga xam ne yéen fi ñëwee yéen a jigéen te war koo defal loolu lépp lu war ko tee soññ ana ngeen. boobu xam nga koo ko war a defal day fekk mu toog kii pemm pemmee ka pelam pelami lu mu romb ci bedd mi for ba xaaju guddi lay dikk bu dikkee fekk la nga gëm mentu. Mm-hmm. bay jayaxu kooku taloo ko pédicure taloo ko. mel ni ñaar yi nga jëkk wax dellu ci pemmi pemmi. ak fayu fay di dajax dajaxee ka déj lu mu romb ci mbedd ne ko pelam seex balaa tëdd si xaaju guddi bu ñëwee fekk la ngay daj koo ko jayeeku kooku taloo ko pédicure ak manicure ndax fekk na ndox ma bax na ba sedd li ngeen di wëree ngi ci kër yi te moo leen lew bu ngeen fa toogee am na ci jéeg joo xam ne dañoo pare pour sëy tax waaye bala nga naan naam day fekk nga nekk fa ndax góor goo xamante ne loo koy defal ca mbedd ma nga koy dabee jee am na ci ñoo xamante ne jabar sangu leen jabar rasé wu leen jabar deful leen leneen mais ñoom ñoo bëgg seen bopp mais am na ci ñoo xamante ne nii ñoom seen bopp ñoo bañum ndox bañum sangu bëgguñu jëndum parfum bëgguñu leneen buñ la rombee nga ne tey ngay dee buñ waxee ak yow nga fat mami mami foofu nga daanalee rek lay taxaw macha allah maa ngi leen di xam naa ku toogoon di leen seetaan dina ci jëlee njëriñ bu bare bare bare mhm. foofu nga daanalee rek lay bëgg euh, taxaw ndax léeg-léeg ñun ci suñu ay waxtaan mhm. di nga taseeg spécialiste yi ci mbir mi di waxtaan ci mariage mhm. waaye di nga dégg benn Eva Tra wala mami Linguère naan jigéen ba jonge jéemal jonge mhm. te damay wax toujours ma ni baasu jigéen bu gannaaw bi mu xamee ne maye nañ ko li li li ko tax a jug mooy bu demee defal plaisir ka nga xam ne moom la fay fekk. wala waaye nga wax wax bu am solo est-ce que ka nga war a defal plaisir am na jotu dal ba nga defal ko boobu plaisir. Ah, ah. kooku question la bu mag a mag mag mami léeg-léeg nga dégg euh, ndoy baan li ñuy wax yëpp pour tere naka la ñuy def ba divorce jóge fi mbokk mi bu dee yaa ngi ñuy soog euh, jël loolu la ñuy waxtaanee léeg nga dégg koo xam ne dafa la naan lu ma xamoon def naa ko lu ma mënoon def naa ko waaye changé wul dara mm-hmm. kooku su ko amul ku ko dimbali divorce dana am ndoy baan su mhm. amul ku ko dimbali maanaam li tubaab bi naan amul yaa ngi def dara te amuloo ci répondant yooyu yëpp xeet yooyu dafay indi dafay indi divorce mhm. xaw ma ci dolli nag mais eh, li mu wax rek laa doon taxaw tuuti mhm. dëgg la non non divorce moom li koy indi dafa bare bare bare goo xam ne xam naa mami dina ci ñëw dëddale baa ngi fi ay nit yoo xam ne tas nañ te xamuñu lu ko tas ku fi tudd dëddale dimbali ñu rek yal nañ ci yàlla musal li ma ci jot ci te mami mami dama bëggoon nag sëriñ yi la ñuy wax ku ci dikkati benn évatra bu dikk ne nga déddale ko ak diw ak diw yow yàlla may na la macha allah boo gëstoo da nga gis gëstul sa dëgg nekk <laughs> balaa dëddale allo salaam euh, naa am numéro tata Eva mi ngi lay dégg maa ngi lay dégg très bien Mia Ndour jox ko sama numéro bu fekkee jógeegul céréji ba jongeel defal lal bu rafet defal cuuraay bu neex kan kay defal yàlla na ko arrangé mais gis nga mam yi daf ci am xeetu góor yoo xam ne ñu taxaw tuuti ci ñoom mhm. dañuy bëgg sax rendre la nga nekk ku fautive mhm. maanaam di nga dem am na jigéen yoo xam ne mam yi xamuloo ne dañuy dem bay posé wu question est-ce que ñoom ci seen bopp ñoom ok nañu est-ce que ñoom na nañu nañ koy waxee est-ce que sama drap bu weex bi neex na ko am na des hommes qui sont capricieux mami. xam nga et ñooñu da leen di fàtte tuuti nga toppatoo aussi sa bopp. am na ñu kenn nettali naa la fi nettali waa joxoon rendez-vous xaritam ne ko pour ñu seeti xale bu jigéen bi. waaw ñu toog ba dem jot mu gis ne ndaw si sañse na lool ndaw si toog gi xeeñ na ci kër gi neex na napp yi rafet nañ. mu jékki-jékki ne xarit bi nu ñuy def ba dem xarit bi ne ko grand fii kay toog rek ka fi sës. mu ne ko may ma léegi ma wuti feem. tapas jékki-jékki rek ndaw si bi ma ne laa ba léegi mënoo yekk reer lii lan la. dem suur nañ booy jógal ñu wuti lu ñu lekk ndekete boobu ñoom ñu nga jëm ba beneen dëkk laaj ma ànd boo gis lu ci lu ci gën mhm. na nga fexe ba xam foo tooñee ak fun la tooñee ñaar yooyu boo ca defee ràññe léegi nga noppale ku dara dootu la sax xam nga Eva li ma lay wax dama ci dellu siwaat mbir mi loo gis tollu waaye la dëgg la gis nga yow mi am tolluwaay boobu macha allah ak ñi ko yàlla may suñu ñoom yaay ki neloog ñooñu <laughs> nañu sant yàlla parce que gis nga liy fatt bët du fa bàyyim xel <laughs> léeg-léeg nga gis koo xamante ne yeewuwul ci bi muy dugg ci sëy dëgg la ndax ñenn ñu ci bari ndawalu bormon lañ lu ñu duuf duuf dañuy ratax dëgg jëmm ji dina ñëw mais xel mi du egsi faaw itam nga am ci jaar-jaar yoo jaar am mag mu la yar nga dund ci yooyu bu baax ba soo demee mën a xàmmee fi nga tooñee ak fi la tooñee mais ndooy baan dafa dajji bu rëy rëy rëy boo xam ne bu ñu ko tëbee bisimila sénégalais yi duñu ñu ko baal nga wax ci lu am solo. waaye xam nga yow da nga ne sëriñ ba ngay dem. waaw yàlla may na ko mën naa gis xam nga sëriñ ba ngay dem dangaa demoon ci ab tariyaq. dafa am tariyaq ak tariyàq dëgg la. tariyaq bi moom yàlla da koy nattoo ko seytaane da koy jay moom mënta def lu dul lu bon. subhanallah lu mu def ak yàq rek lay doon. Mm. moom dana siiw gis kuy def lu bon ak kuy yàq ba mu ànd ci ak yow di yàq. wili jéeg ju ci baree baree bari teg nañ seen një dem te xamuñu li leen yóbbu lan la. subhanallah jéeg ji ci bari bi seen sëy tase ba mu def deux ans ci la ñuy soog a rendre compte ci ne tooñu ñu kañ jóge kañ jóge tooñu leen. mami dogguma la damay dee wax ñi nga xam ne dañ leen di recevoir ku ci dikk rek man la niñ koy waxee zëm ni ko dalal. Mhm. dalal dalal dalal métit lu mu métti métti métti bu la yàlla mayee nga fanaan bërsët. incha allahu da xam ne métit bi yàlla wàññi na ko hmm. yàlla na nu am ku ñuy delloo si ndax yi xew ci kër yi danoo xumb de parce ah, que xam nga dafa mu benn way boo xamante ne man sama hymne national laa ko def jëlal jëlal way ko ñu dégg bu coow li jollee na nga kuul Kumba Gawlo ngay waxal bu sëy bi yëngoo na nga kuul allo salaamaaleykum wa rahmatullah maaleykum waa soxna su baax si soxna si lay yow moom xam naa ne dangaa sëy ba dugg boîte vocale bàyyi fa message ñëw toog barke yàlla. Eh, wax ma noo ko dundee. <laughs> maa def. sant muñ ak namm maa ngi leen di vraiment sant parce que c'est un boo xam ne vraiment intéressant. ndeysaan jërëjëf. yow loo ci dund. est-ce dem kooku dem na Eva Ndoye Bane dañ koy bàyyi mu dem ci parce que mhm. Ndoye xam na ci yu baree baree bari mhm. Mhm. weekend bi wax dëgg yàlla am gis naa ci yu bari ndaje ma ma nekkoon démb ñaar ba ñett ba ñeent am na ci ñoo ci interpellé ñoo xamante ne ku ci nekk da nga ma man la ma génnee ci sama sëy xaw ma lan la ñenn ñi dañ leen a tëkku comme ni ko femme bi waxee keroog dégg naa leen femme bi leen doon woo bi ma fi nekkulee te yooyu bu ñu koy bu ñu koy fowee gis nga balaa mu ngi ci làmmiñ nit ki yaa ngi donte nag ku ñu tëkku nga tiit gëmoo yàlla ndax ka lay tëkku yàllaa ko bind moo la bind te yàlla du bind ci fanweer mm-hmm. rey ci fukk ak mm-hmm. nekk ci làmmiñ tellement que mm-hmm. yàlla dafa mën a seetaan mooy téléspectateur bi gën a mag ci àdduna lay seetaan di la jay di la bàyyi nga tëkku balaa ànd ak sa làmmiñ tëkku boobu dal su dalee nag mënoo cee set te gis nga julli dagan na mais sëlmal araamul mais diggante bi yàlla dogal ba pare maandu ci am na jeeg joo xam ne tey ñi ngi naan dañuy dem dañuy dem dañuy dem rek ñu di leen xas yóbbuwuñ seen bopp wulu wulu yi daw ci fas moom lañ jël takkal ko picc fu picc ma wàcc ñu wàcc cee te te te mami nañu wax itam mhm. euh, ndoy baan mhm. ci ci jeeg bi toog nañu ko encouragé mhm. parce que Eva mën nañoo wax ko lu kenn xamul mami li ngeer dikk wax ko lu kenn xamul ani aji kura ma ngi fi toog ak ñàkk fayda wallaay ñàkkul fayda bu doon Eva dafay mel ni yow bu doon Eva day ñaan yàlla mel ne yow daf koo melul yaa ngi toog saison bu ne di la fa fekk lu ne ñu la koy teg yow xanaa xamuloo ne yàllaa la dimbali kenn dimbaliw la ndax aji mun muñ kat dëgg dëgg dëgg kooku yàllaa dikk ci moom mhm. bu la ko yàlla defee baye boo na nga toog sëy sa sëy mhm. xam ne na kaay li ñu doon wax ñëpp tronc commun lañ ku ci nekk ndoy baan dafay ñëw spécialisé wu ci nangam euh, kële euh, Pape Samba Thiam spécialisé wu ci nangam keneen ak keneen ak jaañ mii toog jàkkaarloog ñun loolu doo nga am nañu wax ki ci bi salaamaaleykum allo. Mm-hmm. dégg nga Ndoye ma doon wax ne bépp jigéen boo xam ne dafa toog di muñ bu mu jaaxle mukk ci boppam ndax nit ñee ngi interrogé wu naan li tax kii toog fii li tax mu nangu nangam li tax li tax li tax kooku na fexe muy moom. bu doon moom mu jaaxle dogu ma la de te damay bàyyi Ndoye Bane mu dem. mais muñ mais muñ boobu noonu. Eh, waaw am na ci ñeenti façon muñ kan. ban ak ban. kii muñ ngir yàlla yàlla nee na ko fa bàyyi. ba moom day muñ rek ndax bëgg a sëy. boobu du ko saxal àpp. salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum <laughs> salaam. soxna su baax si noo def. maa ngi fi yow moom sëykat piir nga nii ma la déggee nii. <laughs> man man dama laa bëgg yow sa bëgg national bi la jël man sama bos Ila Touba bi APH. <laughs> wallahi original bi laa dama laa yàgg. polygame polygame dëgg mooy. maa la raw fii laa la def. yàgg ngeen ci weer seetaan. yàlla yàlla seral tëraayam. bëgg naa la de wax dëgg yàlla ak yéen ñuy conseillé moom macha allah. raw naa la raw daal mu karate. ndeysaan <laughs> ndeysaan jërëjëf. yàq saa Eva ak ak tonton Ndoye Bane moom sama la eh, am nga fans bu bu yéeme waaye bu doy waar. bu baax waxee ci jigéen ñi moom nga ni bu baax bu waxee ci góor ñi tamit. da ngay ree ba tax <laughs> mais li ñu wax yëpp am moom. wallaay li ñu wax yëpp dëgg la. bari nga ciy morom li ñu wax yëpp am. Mhm. waaw waaw bi moom macha allah. man mm-hmm. jigéen laa damay sëy damay nekk si néegu sëy mais li ngeen fi wax yëpp am. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw yëpp am. mbaa yaa ngi koy teg ci yoon daal. waaw waaw maa ngi góorgóorlu de. góorgóorlu rek. presque ma xool 2009 laa laa laay dugg dugg ci sëy mais. yéen daal yéen bu baax sax. yàlla nañ ci def santam. Mm, maa ngi ciy góorgóorlu de moom. góorgóorlu bu baax. ñaanal leen baax na. ndeysaan. Sara Eva moom ku ko bëgg laa yàgg mami moom man da may faj. maanaam wareef sa affaire la. wallaay sama affaire la chaque jour du ma ko raté. Hmm? bëgg nga jéeg ju baax nag jéeg ju mën a sëy ndeysaan. ay jéeg yu <laughs> am jom nga jàkkaarloo loolu la dama koy déglu ba pare wax yi muy wax. wax la wax wax yi muy wax moom boo ko déglu xam ni wax la. ndeysaan wallaay ñoo la raw. man moom magama yar damay déglu yu bëri sama maam daf ko daan wax mais dama koy dégg si moom. ndeysaan. yu <laughs> sama maam ma yàq moo tax la man maa la raw def naa la sama biir xol na la tataam yaa jox sama numéro. bon Eva da ni jeeg bi ci biir kër gi di muñ. Mm-hmm, mm-hmm. paa bi ci biir kër gi moom dee na muñatul moom il est mort. lu ko rey. voilà jeeg baa ko rey. après naan day muñ. ay way dencante dañuy muñalante lañ wax. bu romb jeeg bi nii rek muy dangi-dangi di ñëw nga naan kii li mu muñ li mu baaxee bàyyi leen di apprécier jabaru jàmbur yi wala jëkkëru jàmbur yi xamu leen ci dara mhm. mën naa baax ci mbedd mi baax ca saal ba baax ca ëtt ba fekk moo gën a bon ñëpp mhm. xam nga kii li mu daj ci sëyam bi li mu moñ ci li ngay gis yow mais jëkkër moo mën a seede ni sama jabar ji ku baax la nangam ak nangam ak nangam jabar moo mën a seede ni sama jëkkër ji ku baax la nangam ak nangam ak nangam yéen ñi ci ëtt bi ak yéen ñi ci mbedd mi xamu leen dara ci say mhm. jàmbur nga donc da ngay gis nit naan kii ni mu muñ mu fekk muñul dara chaque jour day te fanaane fanaane saaga jëkkër ji la dëkk mais góor ñi toujours ma wax ko góor ñi ci boppam dañ dul wax rek góor ñi da ngay gis ku xëy suba jabaram wax ko lu rëy loo xam ne ruus na sax nit di ko dégg foofu nag dara rek laa ci bëggoon yokk pour jigéen ñi waaw xam nga boo yëkkatee kàddu bu ñaaw di ko wax nit ki xam nga lu ciy dommage li mu juge sa sa biir xaw ma ndax comprendre ngeen li may wax mm-hmm. li muy jóge ci yow maanaam di génn di dem ci keneen gis nga Eva baan xaw ma loolu naka la ko wolof. Eva di kilee di waxee nit ki. ni ko làkk euh, bambara yi di waxee si à dire yaa ngi génnee wax bu ñaaw. Mm-hmm. Euh, tëbul rek génn mais yow da nga ko jëkkale ci sa bopp génnee ko mu jóge ci yow. te yow lu rafet nga war génne. booy wax ak nit noo koy def du nii. waaw nii waaw moo la ëpp jàmm. moom bi dem ci moom daa sew. ba tey ba tey rejoindre bi ñëw ci yow moo gën a dijj très bien xam nga lu tax. waaw lu ñaaw li ngay génnee. di ko jox ki jur say doom te di la denc ngay yendu ci poosam di fanaan ci dooleem c'est parce que yow yaa am lu ñaaw ci sa biir. cay jàpp ndax li nga li la li la raay li la raay mayul xosi du la ko may. Mm-hmm. su la ndoy baan defee dara tey sa borom kër. Mhm. toogal di ko seetaan defal comme li nga wax jéegu salaam. patt attitude ba lépp daal ak patt attitude. nga teg ko mu toog <laughs> mais ban heure lañ war a toog parce que mag ñi aussi. Ah. am na ci loo xamante ne dañ ñu ko nëb. allo jëlal ki ci ligne bi. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. ça noo def. ça va maa ngi ci jàmm. yaa ngi ci jàmm. ma benn ngi nii. ay tata ma la sopp laa. wuy ma. léegi xam ngeen nu may def man daal dama leen di seddale sama jëmm ji rek ku nekk jël fa la neex. Eh, eh, maa la gën a séddale. xam ah jaañ foo jël ah Podor Podor yaa ngi Podor. waaw naka waa Podor. ñu ngi ko Aïssata Tall ñëpp a ngi ci jàmm. ñëpp ñu ngi ci jàmm bu baax a baax. ah maa ngi maa ngi nuyu waa Podor yi. kontaan seen jotaay bi. jërëjëf di wax maman Eva dama ko bëgg. ndeysaan bëgg nga ko baax. yéen a bëgg wareef. Mhm. dama leen bëgg bu baax ba pare sama maam da leen bëgg chaque instant da leen di seetaan. mu ne taalal télé bi. <laughs> da leen bëgg ma kontaan trop ci seen émission ñu maam booy lu bari. ndeysaan dégg kontaan trop ci émission bi tamit. ndeysaan ndax émission bi macha allah am na solo. Mm-hmm. Ah, ci li ngeen di wax ah, divorce tey am na njëriñ xam naa ne képp ku leen di déglu daal. Mm-hmm. du am benn jafe-jafe ci néegu sëyam. parce que macha allah yéen a ngi yeete. Mm-hmm. ay ah, émission yi am importance ngeen di joxe. waaw di di kontaan trop tamit waaw. jërëjëf jërëjëf kontaan nañu ñun itam ñu waa Podor yëpp. Eva sànq dama la doon wax ñeenti. ñeenti muñ yi waaw waaw. am na ci kuy muñ ngir yàlla kooku du toq du tàyyi xam na ne mu gaaw mu yeex yàlla dina ko fay. am na ci kuy muñ ngir immeuble bii biñ koy tabax fi la ma fekkoon duma ko fi bàyyi di dem di dëkkiwaat sama kër yaay wala di luye jib appartement damay toog ci immeuble bi kay di ndaataatalax luñ ma def ma jël compte bancaire bii duma ko fi bàyyi di dem moo ma fi tax di muñ. kooku muñul ngir dara mais day muñ ngir alal heure bu alal ja jeexee nga noppee xam ne kooku muñul am na nag koo xam ne day muñ ngir bëtu senegale yi su ma demee ñu xas ma su ma demee ñu ne damaa daw su ma demee ñu ne damaa tas su ma demee ñu ne lii am na nag koo xam ne muñam ngistal la koy def mooy li ndooy baan wax mi ngi muñ ci biti àdduna bi yëpp gis ne mi ngi muñ mais su duggee ci biir ma ngay bundu xataal ka mu nekkal ma ngi koy teg métit goo xamante ne nit ñi naan moom de ba mu toogee ba tey jógut ñu naan ba nga fi wàccee ba tey ba ngay tuut nga fi wàccoon ba tey demoo fayoo dikkoo fekk na yow ka nga nekkal bu sañoon tey boo ko ñaanoon baat mu mayee tànn béeru euh, potu meew <laughs> ndax dañu siiw nga dem kooku bay ba nga bàyyi la ngay muñ te dem ndax amoo ci yàlla amoo ci yonent amoo ci kenn mu ñu ngistal jaratu ko fi jéeg ju bari nag mu ñu ngistal la ñuy def. gis ñu bari. waaye nag ma yokkal la ci dara te ñëpp di ñu dégg te muy dëgg ci man. Mm-hmm. xeetu muñ ya nga wax yëpp d'accord na. Mm-hmm. mu ñu ngistal bi rek laa d'accordul. Mm-hmm. ne da ngay gis jigéen boo xam ni ba muy ànd ak jëkkëram vraiment dara new fa quand je dis dara c'est dara dara dara dara mmh, dara mmh, mmh. pepp suuf sax amu fa dëgg la kooku dañu koy ñaanal yàlla bu situation jafe ngal la na am fu lay toog foofu xaar ko ne man kat duma la jàppale ñuy step by step na ko xale yi di waxe one by one benn par benn ba lépp sotti ma gedd dem dignité baax na rëy d'accord yàqul jigéen waaye nag itam bokk na ci nga am fu la ne lii danaa ko muñ ndax sama jaboot lii dinaa ko muñ ndax sama doom mhm. ngal la bu ñu dee euh, jotee ak euh, borom kër mhm. na doon loo xam ne mami loolu yow ak moom la peut-être loo mënta wax sax ci kaw man yooyu façon lay d'accord mhm. waaye immeuble bii bu ma fi génnee ñu génn dugal ci keneen danaa ko fa toog bismillah Ndoye <laughs> danaa ko fa xaar kenn mënu ca kenn ci dund ko di ko menace ñu bari ñi seen <laughs> seen ñu bari seen ñu ñu bari seen sëy mi ngi tas mm-hmm. sama jëkkër dama koo jàpp muy wax téléphone di nga jàpp seen jëkkër sama sama jëkkër dama koo jàpp <laughs> euh, ci ci whatsapp bi. ku leen bëgg a jàpp rek police yooyu ne ko ne ko doguma la mooy yu classique yi mënta man mii la sama kaar bi man nga xam ne. mooy sax est-ce que du mooy mooy sax sax et puis yanama il faut euh, ndoy baan ma ma reetaan ma def am na ku may ree yan yanamar dañ ñu ci jiitu rek mais yanamar c'est partout mais nañu ko gérer rek. lan ci nañu ko gérer ah, ay ay jàpp ay portable ay ay téléphone ay ay. waaye soo soo ma jàppee sama téléphone après. léegi après mais c'est ton téléphone. da ngay da ngay tas da ngay tas. kaay ma wax la dara man moom kuy xaar mais nooy baal téléphone moom kaay ma wax la boobu <laughs> waxtaan la ndax dootul kii de tu sais lii di téléphone lii de ordinateur. lii di ay xeetu xarala yu bees yooyu soxna yi bu mu tax kenn yàqal sa bopp da ngeen di faral di wax ne euh, gëstu gëstu gëstu gëstu la mais léeg nit du gëstu dafay tombe ci mbir. da ciy yem waaw da ciy yem. mais loolu nag boo ca yemee. yal na nga am ku la gungee. lool lool nag xam nga mami bu ñu waxee ma ñëw. ndoy jigéen bu baax bu ñu waxee ne ma ñëw. mooy jàpp jàpp mooy jàpp jigéen bu baax mooy ki nangu lu lu lu l'insupportable ku ko supporté rek jigéen bu baax la. xam nga mami moo tax may wax mois je le dis ci ci jigéen yi may tasel dama leen di wax mani leen. nit parfois day baax nga peese sa bopp. xam nga nga c'est important allo allo oui allo waaleykum salaam. soxna si na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax. man de euh, seen dam bi moom ma yëngal. ñu ngi lay déglu bu baax. noo ci yëngatoo. wuy <laughs> ko. Ah, man sama sëy dafa la woon tas ndax téléphone. ndax téléphone. mu demee noonu. la jàppee. whatsapp bi whatsapp bi. Ah, lu la eh. loo ci def loo ci def. Ah, man sama soxna daa ñëw fekk ma may nelaw. waaw. mu jël sama empreinte. moo la tooñ daal di koy tijji. yow waa kon yow xanaa njaay nga sant mu jël sa empreinte. <laughs> ngay naroon da ngaa sonnoon. ah seen téléphone yi léegi seen empreinte yi lañ leen ko. moo léegi dafa jël sa empreinte ci yow. teg la ci waaw teg ko ci. yaa mën a nelaw. waa léegi après lan la lan lan la fa gis. Ah, lu mu gis daal moom la gis daal. waaye bu xoolee wuy ma loolu du dara ñun ñëpp jàpp nañ man man dañ maa jàpp ba bërgal ma yooyu du dara. loolu du dara. loolu ku ci tas say say. waaw léegi grand bi mu la jàppee. <laughs> ah. astafurlah. whatsapp. lu bi mu la jàppee après. <laughs> waa kii <laughs> dama ne léegi bi mu la jàppee nan la demee na ko noo ko dundee. aywa soxna si soxna si. Mhm. Euh, mhm. wax dëgg yàlla lu am solo la. ndeysaan si dafa mu jege na la. non non instant bi ko fi. ah dafa génn. dafa waaw. loo ko mujj wax baal ma. non non. dem arrangé ak parents yi. <laughs> oui mama wax la dara. mais tiitoon nga de wala. déedéet surtout ma woon de parce que damaa gis moo tooñ. Ah, nga gis ne ba tey moom moo tooñ. ndax portable ka ko porté ko moom. Ah, moo tooñ kay. moo daal ñaar daal. maa ngi koy wax ko waroon a porté plainte sax. porté plainte. da ko waroon a porter plainte. jëkkër ak jabar plainte amu fa. waa bañ a am. loolu yëfi sàcc la fekk sa jëkkër sa jëkkër di nelaw nga yor sàcc téléphone jël baram bi daal maa la koy wax ah benn bi mooy yow mii di nga nelaw bañ sàcc la yóbbu yow am violence la sooy <laughs> ëpp naa dem <laughs> beneen bi ci des mooy ku jubadi nga de xoolal defoo dara da nga ko waroon a porter plainte loolu c'est du maa ngi nii di est-ce que sa orange dëgg la ma xaalis bi nga dugaloon ci sa compte bi est-ce que vidéo ah doo wàññi man dara rek laa la bëggoon laaj ñaata année de mariage ngeen def sëf sëf ko ko euh, bientôt quatre ans de mariage bientôt quatre allah soxna si dina ma sa taay bàyyi la sa téléphone bu soobee yàlla mhm. bi nag comme yow da mën a nelaw dina mais mais na ko jàppale nag euh, ku baax loo jubal rek da ciy gën ah sëy sëy dafa sacré waay. ndax beneen façon kon ah. dafa garaaw de. voilà sëy sëy dafa sacré eh. léeg-léeg di nga gis ku dikk naan euh, soxna si daf maa jàpp ci sama portable bi dama ci def nangam ak nangam nga ni ko yokkal code yi kooku jàngaluloo ko baax parce que yàlla tam dafa bëgg nit ku jub yàlla dafa bëgg nit ku baax yàlla dafa bëgg ku sàmm xam nga ma ni am na fi ku xëyoon liggéey li ngeen ma ñëw mhm. xam nga nga am dara sa kër euh, ndoy baana ngi ree ñu ngi kaf ñu ngi ree ak waa ji d'accord mhm. mais dinañ ko wax itam loo xam ne mooy defar këram parce que portable bi ngeen ko di ci def yoo xam ni tey bu dee amoon léegi su su yàlla yóndewulee ku gaaw jël ka nit ki dana la tënj ak xol bu jeex. parce que yéen a ngi xalaat ndoy baar maa ngi noo déglu ma rek. portable boo ne lan cay wax suba ba ngoon dara baaxu ci. Ah. xam nga lépp loo xam ne yaa ngi koy def ci àdduna ndoy baan ah. te bu dee dikkee gàccee am ca yàlla nañ ci yàlla musal. am nag ñoo xam ne dañ leen a war a ñaanal yàlla ndoy baan nga koy wax sànq naan defoo dara. Mm-hmm. am na ñoo xam ne dem nañu ba ah. weesu nañu maanaam nekki nu nit danoo feebar léegi. déggu leen ma de. Mm-hmm. danoo feebar dañuy def dara ba inhibé ci xaw ma dugg ca dugg ca dugg ca ba ne ca tot fa lañ dëkk tu peux pas les les changer li may wax euh, mami jigéen ñi mm-hmm. mooy li may wax jigéen ñi mooy mm-hmm. euh, mbirum portable ak yeneen ak yeneen ak sax loo gis mm-hmm. bu mu la yàqal soit toi-même et gère sa ay occupation c'est important am na daal ko fi connecté woon di mhm. wax këram ci ordinateur mhm. di dem fàtte ko fàtte déconnecté wu bokkut ak virus mi toog jekki-jekki affaire bi war yaw la mu ne fayal gaaw ndax virus a ci ñëw noonu booy kas muy ex déedéet affaire bi du noonu de juum nga am na loo tëb booba dafa dama ko ko bëgg dafa dem booba dafa moom mi sol lu beige li koppati bii dafa dem fee li ca wax la muy wax di ñëwaat et puis gis nga dañuy afficher pas dawal booy mhm. tey ku ko gis ak colom gi dafa dem ca biiro ba. ndaw sa defe naa daf ko woo. ni ko waa yow yi may gis ni lan la mu xam ne comme daf ko synchroniser. à ah, portable am mu ne ko gaawal fay ko loolu virus la virus. ay ca organisme xam nga gis nga Eva maa ngi lay maa ngi lay wax sànq ne la. yooyu fii ñëpp lañ mus a jàpp. Mhm, mhm. ñëpp lañ mus a jàpp. man man man dañ maa jàppoon ci loolu. yow papa yeeg tonton yi dañ ci bokk. sama suñu papa yi bañ a jàpp ak suñu tonton yi affaire bi loolu la xanaa xamu ni diggante diggante jëkkër ak jëkkër jëkkër ak jabar maire yee gën a fiir ñëpp man Eva merew maire yi ñii dañuy xool portable ñoom Adja Dabage dama ni dañuy xool portable paa yi yow ñoom yaa ma amul amoo droit sa jëkkër tëdd di nelaw nga sàcc téléphone am di xool la ca ne tuuti baa leen dafa fiiroon loo ci gis <laughs> loo ci gis yaa tooñ jëkkëram du ko waroon a porter plainte parce que loolu tegu ko fenn. mais attendez man ah. merewuma merewuma mooy lan merewuma ba tey góor ñi nga xam ne ñooy def yenn seen portable yi de déedéet. defuñu ko ci yéen jigéen ñi yéen ñu ko yónnee. man xam ne dañoo am jabar ngeen ñi yónnee ay message waaw mais boo ko sequl boo woon ak ñoom duñ la ko yónnee. Hmm. Ah, hmm. xam nga bukki bu dabee ponkal ca doxin bala. Hmm. Ah, gis nga man ñi ma mere Eva mooy jigéen ñi nga xam ne xaaj bi yëpp seer nañ ndax ñàkk nelaw guddi. ndax di yootal waa ji ba mu nelaw pour nga jël téléphone bi dem dugg ca douche ba wala nga dem dugg feneen. Mm. nekk ca téléphone ba di fouiller ba bët set. di relever ay numéro boo xëyee li nga yor ko néew ak di woo boo nga boo ca yàggee da nga xam ne yóbbuwu a fen da ngay bàyyi yaay taay boo xëyee li nga yor ko néew nga jëndee ko crédit def ci sa téléphone kenn ku nekk nga woo ko yow di nga wut beneen numéro mm. donc yaa ngi sonal sa bopp temps bi nga xëyoon yow war a mën a def sa ay soins wala nga toppatoo sa bopp yaa ngi ko toog di woo keneen mm-hmm. beneen bi topp mooy gis nga janax ju ndaw ji nañ ci yeewu janax ju ndaw jii bi mu fi ñëw fekk nañu suñu maam yi sëy nañ ba jur suñu papa yeeg suñu yaay bañ jur ñu janax ji ci ñun lay nàmp ci ñun lay dund ndax moom ñenn ñi moo yàq seen i nopp ñenn ñi moo yàq seeni i bët suñu courant lay naan ci suñu poche lay dund ndax ñooy jënd crédit di ko sol ñun ñooy jënd connexion bi di ci def waa léegi nan lañ bëgg a paree moom mu tukkal suñu àdduna mhm. beneen bi gis nga yëddu ah, ci ngeen wut ay xarit l'heure est grave hmm. salaamaaleykum Eva Ndoye Bane parle de moi j'avais installé des dictaphones dans sa voiture. du ñu jeex. et dans toute la maison. ah euh, euh Eva. Ndoye Bane man lay waxal. Ah. dama installé woon ay dictaphone ci otoom installé ko ci biir këram pour plusieurs raisons. Hmm. ndax dama ko manqué confiance. sama ba ma muccee nangam ak nangam. Mhm. waaye maintenir góor ci liggéeyam daal ci. waa waa waa dafa doy waar daal. vraiment moom daf ca amu ca amu ca lu ko amu lu ko neex. mënu ca am lu ko neex. mais mais yal na ko yàlla jàppale ndax jigéen ju jigéen ju baax la. waaw mais moom moo wër loolu. Mm, mm, mm, moment bi mu koy def sax ci la yëfi di gën a nag takkar naasee nag. ndax la parce que da ngay yëddu te ku xool eh, dégg gis. mami est-ce que foogu leen ne par exemple pour man xam nga tey sunu yaay yi exemple bu bu bu taxaw laa leen di jox. Mhm. xam nga sunu yaay yi amuñu jotu téléphone kenn. loolu nga foog laaj leen ma lu leen ca yóbbu. xànkay mhm. ndoy baan alma ma woot woote. déedéet expérience. ma ne bu nu xeebal nit ki jaar jaaram xam nga loo doon bula rek doon ca bula mhm. waaye loo dem benn ak ñaar ñetti ñeenti juróom la cay xew da ca xew li nga ciy gis nga ko ciy gis bu yàggee da nga kaa wàccee boppam. xam nga bu fàtte ne maire bu fàtte ne maire yi ay rescapé lañ. <laughs> maire yi nañ guerre yëpp ay mutilé de geer lañ donc maire yi fi mu toll nii dara safatu leen. dara frégewu leen xam nga ñoom lu ñuy xaar mhm. toog seen doom màgg pour ñu mën a jot pension bi retraite bi <laughs> bàyyi ma mare di ko waxee woon ana ah, ah, sekk doon wax teex teex mare balaay maire yi dara frégeetu leen da nga ci gis maire boo xam ne da koy wóor ne paa baa ngi koy lonk lonkal ci koñ mm, mm. di ko lonk lonkal ba ci biir mm, kër gi jànq boo indi mu lonk ko ci ndeysaan mais maire yi duñ ko yëgal seen yaram bu ñu xëyee fuddanu def seen kol bu baax ah, def seen kurus bu jaam ñaar nga xam ni li tas seen sëy kenn ki téléphone la euh. jabar ji loo yóbbu waaw def ci moom ay million muy nganale waaw bàyyi def lépp génn kër ga dem kër coroom tëdd fa ñi mu tëddee noonu di tourné laal appel su woo jabar ci ma ngay wax ak gel ba ma ne ko ña nga foofu di def seen puukare yooyu gëmuñu dara di gëw jëwu jabar ji jabar ji jooy di déglu di jooy woo yaayam ni ko déglul waa jaa nga ca kaw lalu ndaw sax di di di di di di di di di dafa gaaw léegi comprendre nga woo jabar ji ci yëgu ci dara nekk fa amee fa jabar ji famille jabar ji man kay damay xaar ba affaire yi kii ma takk la déwén sax yow laay yóbbu di ko wax ndaw si naan ko la ou bien ma yóbbu sa yaay looloo tas sa ta looloo tas sa yëpp te dafa def touche appel te teyu ko xas jabar ji xas mbokk jabar ji beneen bi keneen ki 31 décembre mu tàggoo jëndi mburu ñëw ci suba ga këram la génn taal otoom. dégg ni maa ngi jëndi mburu boulangerie yi ñëw tëjoon dañu sore woon yëg nga ko boobu yëg nit ni maa ngi. xam nga boo ko jëndi woon ngooñ dafa jëndi woon ngooñ deux <laughs> day am embouteillage mu dem nii ville lay jëndee ji mburu mais xoolal port mënuñu koo jot gars yi dañoo yaakaar dafa accidenté wala dafa mm, dee. Mm, mm. te loolu ki nga bàyyi liggéey ba la laan demee nekk mu mu mos nañ dégg sax ku fi xam nga ndeysaan mbokk yi loolu moo leen di woon rek sunu mbokk jigéen ñi ne lu ne lu ne am na parce que bu ngeen gisee ñu taxaw ci joxe anecdote yi bare yi rek moo leen di woon ne lépp loo xam ne da nga ko dund sa biir kër mhm. wallaay boo tasee ku la mag ëpp la expérience dana la wax ne fukki yoon ak juróom-ñaar la ko dund gisoon nañ fi waajoo xam ne moom dafa dikk ne dañu ko ramassoon xanaa ka ngay fiire mu dikk ñëw ba ci yow ah. ne la moom dañ ko ramassoon wala dafa dox daanu ca mbedd ma ñu jël ko yóbbu ko hôpital fa la boppam am koo xam ne bu defee sa bêtise bu mag day dikk ne dafa cardiaque te yow borom cardiaque yow yërëmoo sa bopp yaa ngay def loo xam ne bu dikkee doo ci mucc kon boo li xew li xew mooy ba tey waaw réer soo waxee mun damaa réer xam nga réer dama gën a maa sàccoon <laughs> waa déedéet maa ngi feeñee feeñee feeñee mburu vous n'êtes même pas sérieux toog ba deux heures du matin madame deux jëlal ki ci madame Ngooñ maa ngi lay je sais que maa ngi jot sa message léegi jëlal leen. allo jëlal ci ci jarul ngay tas ah toogal nga. allo sëy doxaan. sëy doxaan bokkul. allo salaamaaleykum wa rahmatulah. allo. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. yow sa allo <laughs> neexul dara. ah neex na lool maa ngi ci émission Wareef ou pas. yaa ngi ci biir ñuy déglu sa xalaat noo ko dundee. Ah, na ngeen def. sant bu baax. Tata Eva na def maa ngi lay fay bu baax a baax. Ah, Ndoye Bane laa bëggoon waxal. ngi mu ngi mel ni mu ngi mel ni Marie Cissé ci man ca Italie. Ndoye Bane oui allo oui. waaw Ndoye Bane def. maa ngi nii rek ça va. ça va jàmm. ñu ngi sant bu baax a baax. waaw Ndoye Bane yow man je t'aime beaucoup ah li ngay wax à chaque fois neex na ma trop. waaw. parce que da ngay wax dëgg ngay wax en fait réalité bi xew Sénégal. waaw mais tey wax nga loo xamante ne ni d'accord ma si. <laughs> loolaa la. en fait da nga ne. Euh, dafa am ko woote ni jabaram daf ko jàpp. si téléphone am. waaw. Euh, nga ne ko jabar bi moo ko tooñ. na ko porte da ko waroon a porter plainte sax. na ko waroon porter plainte nga ne yow jàpp nañ la si. waaw. est-ce soo jàppee euh, yow soo jàppoon sa jabar. waaw. sa jabar yow soo defoon pare sa jabar yow. waaw dama ko dul def. léegi nan ngay nan ngay nan ngay réagir. man dama dul dama dul def loolu. non dama lay laaj. yow waxuma question la bu mu la laaj nee na non non du ma mun a ma mun a non du mun a ma tontu ci question boobu parce que man du ma def loolu. Hmm. waaw mais xam nga lan moo tax ma poser la question boobu parce que man pour man divorce ak ak problème problème ci sëy lu koy waral xam nga lan la yéen góoru Sénégal da ngeen jàpp ni. waaw yéen am ngeen droit. waaw euh, am jabar dem ndoxaani wala mm-hmm. am jabar def lu leen neex mm-hmm. mais jigéen bi amul si droit mm-hmm. te yàlla li mu wax yàlla dafa yàlla xam lan la wax dafa ne góor ak jigéen yëpp kenn amul si droit def adultère wala nga mooy ko wala ngay am jabar di dem di defi ji leneen. donc pour yéen c'est légitime. voilà waaw déglu ma déglu ma déglu ma waaw ma yow. li koy indi yëpp Sénégal. Ah. loolu la loolu moo fiir waaw may may ko waaw mayu yaa yow tey jii su ma la takkoon di sëy ak yow di labat sama ñaareel nga for jël sama téléphone sàcc ko gis ni maa ngi labat am ñaareel loolu loolu yàlla da ko tere. ah. kenn maa ngi woon mi yaa gii na ma xoola dama dama dama xool man itam dama liir daal di koy wax ci kaw laa daal di wax ci kaw mhm. euh, dañ xam nga labat boobu ngay wax ah. dañ leen soxna Fat Bintou dana teew gën koo wax walla moo Seyda Ami Dia mu Mara bu dikkee mm-hmm. moom sax dinañ ko invité fii waaw waaw danu dañu fiir mais xam nga lu nekk rek lu nekk rek da nga koy mesurer loolu la mm-hmm. Euh, labat boobu nga wax ndoy baan dafa am nu nit di labatee. xam nga tey Mamy Linguère li tax kër yi di xumb ak di metti bu weesee nit ki yëg na ne da nga am keneen koy seet. da nga ko ñàkkal fayda. Mhm. da nga ko fa jëw. Ah, da nga fa wax vie privée am. da nga fa wax lu mu nekkee. doo fa wax dara loo xam ni en général da koy valoriser. loolu mooy waral jigéen ñi di jaaxle bu nu yëgee ne jikkër a ngi seet keneen. waaye ka nga xam ne da ngaa dem rek xale ba toog nee nga toog nee. loolu xam naa ma ko xisal ah, ñu ne Eva Tram yi day nelaw fu mu nekk. mu toog nee nga toog nii. wala wala lépp pourtant am na ba takkante ba takkante mosuñoo nuyonte labat gi yëpp très très bien mami par exemple mhm. mais labat boo xam ne yow dangay dem ba nga xam ne ki nga xam ne moo fi nekk danga nga kaa ñàkkal fayda mhm. lu mu doon def mu saf la dootu la saf yaa ngi koy vexé te keneen ñëwagul mais su deful dara man tase naa ak soxna yoo xam ne mami Linguère mhm. dañuy am ñaar ba ñett ba ñeent sama borom kër mënuma ko wax dara ndax ni mu ma téyee moo tax attention jigéen ñi léegi saa yi dañuy réfléchir mais bu fekkee ne yow góor bi motuloo xam nga góor bu matul lu ko fekk dafa yoon gis nga Eva et loolu mooy drame yàlla buñ ci ta yàlla buñ ci tombé mais nag mais nag matadi gi du ci buy labati rek de xam nga lan mooy ah, problème bi ah. ki nga xam ne bu bàyyee penk bi jublu ci soow bi ne la jógoon julli nga topp ko ndax mooy sa borom kër waa nga fas yéene jur moom sa alalu àdduna mhm. kooku war ngaa lijjanti ba mu bañ a manqué na ñett wu ñaar waree fukk bi sa doo dërëm ba de matadi góor gu matadee metti gi nga Eva Eva nee nañu loo loo ay ay mënoo gis fu lay wuree noonu la day defe naa eh, booy tànn nit ki ca ndorteel ba yaakaar rek nga ca duggee xam nga ngoro dafa neex ba doo xool lay jur sëy yaakaar rek lañ ci duggee ñun góor ñi war nañoo góorgóorlu nag ci jabar yi saan du nag du mel n'importe quel jabar dafa am ay jabar yoo xam ni. ndeysaan ba nga leen di takk dafa da nga nekkoon ci zaro. Mm. ndeysaan nga takk leen yëf yi di dox. ñoom it seen jabar yi ñoom sa jabar ji tamit mi ngi woon ci zaro de yow yaa ngi woon ci zaro ngeen ànd yéen ñaari zaro yi ngeen di ñafe di ñafe di ñafe bay tollu fol mm. tollu fenn fi loolu dafa baax. yow nga koy fàttaliku sa soxna di ko fàttaliku ngeen di gër ngeen man mi ba may ba may ba may takk jabar tam nee naa la woon sama télé ba woon ca néeg ba ak sama malaat mat laa bay nuroog fataaya sama télé ba banta ko doon taal yow sa télé ba nii man ba may takk jabar mari di sëy si mm. télé ba nekkoon ca néeg ba banta koy taal mat matelas ba fattaaya maanaam matelas bi soo ci tëddee da nga naan yaakaar yaa ngi ci karo yi. karo yooyu naan la wàcc ma. dara dara ñaari daraa laa amoon yow kenn xamul. Ah. benn jes jeget laa yoroon wékk ko ma nekkoon armoire bi. Ah. yooyu noonu. Ah. soo ko dee fàttali ku xam ne ndaw si moo fi toogoon di la muñal loolu. yow ngeen di muñalante ba tool fenn wa loolu di ko kii mais nag bu mu la teree soo bëggee takk ñaareel te am mën ko nga def ko de. c'est pas parce que yaa muñoon ba ba ba may ba may am télé bu ñu taal bant kër du su ma gisee lu ma bëgg du ma dama ci dugg dama parce que jigéen kenn du ko assuré rassuré à cent pour cent soo ko defee mu def lu ko neex jigéen da koy duteloo waa ji am na lu muy nar di ko duteloo muy dute c'est ça loolu koy góor góor góorgóorlu waaye da ñaar ci man du ma takk jabar du ma takk ñaara pour lan te xale yi ne fi baax bay bëgg a dee nga mën koo def doo ko takk su fekkee su la takkalee dangay ngay tas di jël say bagages nga dem ma xam ne say indi taxul fa indi fiira leen jàpp ak seen i kanam émission bi jeex na très bien Mia jërëjëf Mia dégg nañ la soo ma nee nag à présent nga wàññi micro ndoy baax ndax moom day jékki-jékki rek mami fitt bu naka sànni gumbër sànni waa xam nga léegi fiw waaw d'accord mm. léegi ndoy baal ñun dégg nañ la ñu ngi lay remercier bu baax a baax di kontaan rek ci xale yu baax yoo xam ne Eva dafa tase woon ak ñoom soxna Ndeye Yacine Diagne Mbow moom itam maa ngi koy nuyu <laughs> ndax moom ci événement événementiel la nekk macha allah ma ngay def nag coffret coffret yu toj yu doy waar yu rafet xam nga lu baax dafa baax mhm. euh, soxna Seng ñuy seetaan léeg-léeg nga nit ki wàccagul 19h yaa ngi ko naan bu wàccee 19h tey dina ma fi fekk nga la noppalal sa bopp noppal ko juboo ak moom woo ko téléphone nga dal boo dalee macha allah dal dana la woon yoon kon madame madame Ndoye série sama euh, Cheikh Ndoye. kor Cheikh Ndoye. Inouche. ah d' accord nee na jigéen ñi. waaw waaw hmm. dal femme yàq femme daal la wax. waaw nee na jigéen gu am problème rek. Hmm. sa moroomu jigéen la ko teg. waaw mais dafa fekk nga nangu ko mami li ngeen tàggatoo. Ah. nga lu ñuy laaj la ñaan miyaa ak sunu soppe yi ñuy seetaan mu doon ay mbir yu erroné yoo xam ne bokkatul dañu koy seppi teg ne di dem vers le positif dafa am solo. femme yàq femme ba bàyyi la nga tàggatoo foo ko fekkee dafa fekk loxob góor wala tànkub góor na ca lijj ca biir ndax ñaari ah. jigéen rek duñu jotee fu ñu jotee rek góor a leen jotalee waaye bu ñu xamee seen bopp kenn ku nekk dina xam ne li la indi moo indi sa morom gis nga sëy bi am juróom fukki at ak bi am fukki at ak ñetta yam donte nag ku la njëkk a taal may la doom mm. waaye keroog ba ñu takkee sa morom ci kilo guróog tàkkusaan mm. ak can gu mat mm. nañ la takkee rek lañ ko takkee kon yéen ñaar ñëpp ku ci nekk dem ceekum xel ngeen dalalante defalante xam ne góor jarant jaru fi sottante ndox mu tàng góor jaru fi rayante góor jaru fi tëkkoonte góor jaru fi weexal sa alalu àdduna ndax ñàkk àdduna ñàkk àllaaxira daray àdduna jaru ko sëy su mënta neex bàyyi ko fa te dem yaabooy julli dagan na waaye sëlmal araamul di tàgguwaat waa Sénégal gi di leen wax ne kenn gënu di wax sama yaay ja jaata ne ko man fii laa la def yaa nga xam ne dama ko tuddee toujours góor baax na jigéen jigéen baax na Mia Ndour merci beaucoup à toi il n'est jamais trop tard pour bien faire Eva Tra dafay wax ni bu dee tubaab am na lu mu làkk man boobu daf maa neex ndax foo mën ci toll ci àdduna waxtu bu la yàlla may pour nga noyyi rek daf la ko may ngir nga yeesal sa jikko daf la ko may ngir nga baaxal li nga xam ne mooy imperfection ci yow daf la ko may pour que li nga xam ne dafa dafa yàqu nga jéem ko defar te yàlla nga ñuy may ba tey fi ñuy waxee ñun ñëpp ñu ngi noyyi joo xam ne dafay yokk suñu point bés buñ ko soxlaa ci aljana loolu rek moo mat a ñaan amul dara lu fi jara topp lu dul lu baax lu waay di def te du lu baax rek macha allah yàq nga jëf jëf ndax di ci am gàcce di nga ci am mbugalu suñu borom kon yàlla nañ ci yàlla musal suñu sëy yi nag di ñaan yàlla yàlla bu ci dara am lu ñaaw suñu borom kër yi yàlla na yàlla téyal nu leen bu baax a baax a baax ñi nga xam ni itam ñoo nekk ci kër gi fii yàlla na yàlla defal leen jàmm wax nañ ko ca njalbeen ñaanal nañu suñu président ndax lépp loo xam ne rek ëmb na ko macha allah yal na ci yàlla roof barke bu baax a baax jigéen yi ca biir kër yi ak ankay na nañu seen coono yëg nañu seen métit na ñu yi ngeen mënta wax ci kaw waaye sunu borom xam na lépp te bu ñu yàggee di ko tàllal loxo macha allah lépp dana ko faj ku ci nara def nag lu safaanu na ko bàyyi ndax àdduna yàggul gaawal def lu baax bu ko defee sunu boroom sàmm la sàmm sa jaboot yal na nu yàlla may dégg ak topp di leen souhaiter vraiment bon appétit ci jàmm ak salaam ku ci mere woon sa waay wala ku ci mere sa soxna na ko woo ndax jàmm gën ay jërë ngeen jëf ba suba incha allah.